dal leen ak jàmm ñu xëy taaxan yéene kaay xëyandoo tàmbale ko libération yéene kaay ak i naataangoom na moom nag nag daanaka li Sonko naka ba mu demoon ca tribunal naka foofee la koy nguufaan yóbbu ko këram libération na police dafa dal dee kase rek Sonko naka ca mu paree ci procès naka moom Sonko naka ba mu génnee ca këram nag naka démb ci ngoon ngir amal naka conférence de presse leaderu Pastef boobee moom ay grenade lacrymogène moo ko fa fekk la police naka dal di assiégé maanaam tongaanu buntu këram bo ci guddi gi naka laataa ñuy ñibbi ay gaañu gaañu yu métti métti foofee ca gannaaw ay manifestation yi nga xamante ñoo ko doon amal Ousmane Sonko nee naka leer eto combat fi naka taxaw xeex rek moo si des ndax jàpp na ne jamono ji naka dañ koo def naka illégalement Ousmane Sonko bi moom en lalu l'affaire bi mujj nañ ko envoyé niki mars nag bii ñu dal dee dëgmal bâtonnier bi moom moo lay dicté la conduite au sur la route nag jàpp leen Ousmane Sonko dañ ko embarqué waa GIGN ñoo ko déposé këram comme nag loo xamante ci cinéma woon nag yéene kaay bi di wéyal ba léegi te xam ne ñaari camp muy Pastef ak APR nag ay faux médias yoo xamante ci ñoo ngi bëgg vendre li nga moo di vatan guerre ay journal yi Sud Quotidien di nettali ba léegi nee na ay journal nag arrêté nañ ci buntu kër Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamante ñoo ngi image nga xamante a ci lañ doon dóoree ay lacrymogène ci buntu Ousmane Sonko l'observateur di dem te ndax jàpp na ne daanaka dañ ko taxam taxam ne ba noppi nag nguufaan ko dóor ko

naka mu tax nu dal koy gaz bu mu nataalu loolee naka fës lool ci yéenekaay bi di bés bu le jour naka nee naka démocratie naka mu ngi naka vitre Ousmane Sonko bi dañ koo lu ci munti xew itam procès boobee dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bii ñu dégmal jafe-jafe dem démb naka moo tax ñu bëri dal dee yëkkati ay kàddu naka di ñaawlu mbir mun a bokk na ci Bougane Gueye Dany ci biir yéenekaay bi Tribune yéenekaay la mu naka fi ne nii décret na nag la nga xamante ni mooy njeextalu ko démocratie du ndax la gis nag amul leen loo xamante bi ne nag réew mi nag ne fi mu caaxaan a jeex na caaxaan uggas yi caaxaan a faga nee datu élection présidentielle xam nañ ko 25 février 2024 naka ca la ñu war a tàbbee nag kan mu war doon jiitum réew waaye balaa booba naka daanaka réew mi naka dal na sanjaafu ni daanaka booy xool sax xamante ni na ko ci yoon ndax jàppee ak nañuy tataaree nit ñi nag le quotidien yéene kaay ne fintoon daanaka sang de gaz lacrymogène moo amoon làmb nag dal làmb yéene kaay nag wax ci diggante rëg-rëg ak Sa Thiès nag Mamadou Ali Ndiaye nga xamante ni si activr la nag dal dina addu ci làmb boobu nag nee na moom moo doon favori carrément ndax booy xool nag moom dafa complet waaye booy xool Sa Thiès nag jafe-jafe mooy amul compétition bu bari ci ñoo ko doo jànge jëf ba ëllëg